ànd ak yow ci taalibe ak yar ak fépp foo ñu nekk ba bu la neexoon sax oto bi mën nañoo topp ci sa ginnaaw di la dawal yàlla sama borom rek tax kero ci koñ bi la ma jàppoon jaayu ma defuma dara ànd ak ñoom sama rakk yi ak sama yaay ñuy wër ci koñ bi di leen wax kuñ ci wax rek danga ñoo déggal danga ñoo nungul ñuy sant yàlla bu baax di sant suñu dëkkandoo yi ñu wuy si ci yàlla tax suñ xaalis ji bu ma wax da ngay mel ni loolu danaa yokk jom yokku lu dëgër laay ndax ñi fi nekk ñëpp ay liggéeykat lañ jom rek moo leen tax a jóg. ñëpp xale yu góor yaa ngi fii xa élèves yaa nga ne amuñu kenn foo xamante ne ku leen dimbali ñu dem jàngi xale bi mu tuuti tuuti tuuti ko jàppale mu jàppale ay moroomam moroomam yi doon ay dentité lañ yor ndax xeex day am ngàndaay kuy xeex te amoo ngàndaay nag booy dóor it ci daanu rek ngay mujje dañoo bëgg ñu jàppale ko téye ko xam ne li muy xale xale xale xale dinañ ko téye dinañ ko jàppale dinañ ko takkul nag téye ko nag ñu ngi jégalu bu baax a baax Mbacke Ba. waaye nag lii nga bëgg boobu sori si Tuubaa man lay koy ak képp ku ma àndal Mbacke dinaa la dinaa la dinaa la ci jàppale bu baax a baax a baax jarul ma nangoo dugg ci leen nag mu dugg tey rek laa ma ko def mënumaa wax samay wax rek di bari lii ma la waxee dinaa ci def ci def sama kenn kaay kaay gis nga def ci waaw lii ko xool ma ne woon naa woo jigéen ñi jàppale la ci ngir yàlla ak juróom-ñaar kenn bi laay